bàkk ba jib na ami internet de 24 actu ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu comme nañ leen daan nuyoo di leen dalalaat ci seen beneen actu du jour ñuy wax tey li nga xamante ne nii moo di discours bi nga xamante njiitum réewum Sénégal di président Macky Sall daal na koy def démb lam ca wax rek moo di daal dinay soppi heure couvre-feu bi def na ko bu 21h jotee jëm 5h du matin ñu daal di fàttali rek ne le 23 mars bale passé ci la génnoon daal di def li nga xamante ne nii moo di état d'urgence daal ci toftal lii di couvre-feu defoon ko 20h 6 heures du matin démb bi mu génnee wàññi na heure bi def na ko 21 heures ba 5 heures du matin daal na cay toftal li nga xamante ni moo di heure bureau yi léegi mën nañ koo jàpp 9 heures jëm 6 heures. daal dina cay toftal li nga xamante ni moo di ubbi marché yi daal dinay def 6 jours yoo xamante ni dañuy di ca dem septième jour bi mu daal di koy def ngir ñu désinfecté marché bi lépp loo xamante ni ni salte la ak ay taq-taq ñu mën ko cay def ci septième jour boobule daal dinay wax tamit li jëm ci li nga xamante ni moo di marché hebdomadaire yi bu ko waxee mooy ñuy jëngu ci wàllum luuma marché luuma yi kon mën nañoo jàpp ne dina ubbi waaye tamit dañuy soppi nañ ko daan defee daal dinay wax ci li nga xamante ni moo di jàkka yeeg ak église yi mu di lieu de culte yi kon mën nañoo jàpp ne dina dina tijjiwaat daal dinay wax li nga xamante ni moo di jàngum xale yi xale yi danañ delluwaat ca daara ja bu la 2 juin jotee mooy ñaari fan ci weer bi ñu jëm waaye nag ñoom wax ne ñoom ñooy delluwaat moo di élèves yi nga xamante ni ñooy def examen muy waa CM2 waa troisième ak waa terminale mooy ñuy def CFA e. ak BFM ak lii di baccalauréat kon élèves yooyu le mën nañoo jàpp ne dinañ commencé waat seenum jàng le 2 juin bu jotee njiitum réew mi daal na ciy toftal li nga xamante ne nii moo di séddale masque yi ci lieu de public yi maanaam jàkk yeeg ak jumaa yeeg yu ni mel daal dinay jël lu tolloo di millions de masques daal di koy génne ngir séddale ko askan bi ñu daal cee jugee waat daal di wax ci ki nga xamante ne nii moo di Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'intérieur fii ci réewum Sénégal ginnaaw ba njiitum réewum Sénégal daal di génnee démb def discours bi nga xamante ne nii wax naa leen ko léegi Nguy Ndiaye nee na ubbiwaat jàkka yi ginnaaw bi ko njiitum réew mi waxee du ñu ubbiwaat nii rek buntu jàkka yi wala église yi dinañ wax ak responsable religieux yi ngir ñu xoolaat modalité yi ngir ñu mën a bàyyi xel bu baax a baax lii di mesure barrière yi nee na rite imam Malik douze personnes rek maanaam fukki nit ak ñaar doy na rek ngir julli aljuma dinañ def lépp ba nombre boobule duñ ko dépassé ndaxte neena bu fekkee ne bàyyi nañ noonu rek ñu ubbi li nga xamante ne nii moo di jàkka yi comme na meloon duñu mën a respecté li nga xamante ne nii moo di mesure barrière yi ndaxte jàngoro ci mi ngi gën di law di lëmbe réew mi bañ te jógee daa ciy toftal ki nga xamante ne nii moo di saw si Sidibé moom nee na àndul benn yoon ci dogal boobu la nga xamante ne njiitum réewum Sénégal di Macky Sall jël na ko démb nee na jumaa yi ak li nga xamante ni moo di école yi waruñ ko woon a ubbi léegi ndaxte jàngoro ji di coronavirus mi ngi gën di wëy di gën di law buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay bii di seen Seneweb ci lañ taataane yooyu information jëm ci ki nga xamante ne ni moo di Amsatou Sow Sidibé ñu daal di wax ci leneen soxal lool wàllum société l'activiste bii di Karim Gueye dinañ ko placer sous mandat dépôt buñ sukkandikoo si libération online li ko waral rek di ab vidéo bi mu publier woon niki aljuma ji ñu génn ginnaaw bi ñu convoqué woon Sène dina janook àttekat bi le 13 mai bii ñu nekk ngir naqarlu gi nga xamante ni naqarlu woon na ko imaam Léona Niassène bi nga xamante ni convoqué woon nañ ko ndiki àjjuma jee mu génn li ko waral rek mooy dafa julli woon àjjuma te naam ne nanguwuñ ñu julli fi mu nekk nii ndaxte jàngoro ji ci coronavirus moom Abdou Karim ci la daal di meree rek daal di génn def ab vidéo publier ko ci lañ ko daal di convoqué ñu daal di koy jeexaleek beneen ñaawteef boo xamante ne nii am na mu di cambriolage bu metti la ñu nemmeeku si Mariam Ndaw ko quarantaine ak waa këram ci benn hôtel ci guddi alxames bi ñu génn lañu ko jëlal ay bijoux en or ak ay xaalis ci xayma lépp mi ngi toll ci douze millions de francs CFA ñu ko def rek di ay malfaiteurs maanaam ay samba boy ñoo def boobu lay ñaawteef te li ci gën a métti rek moom nee na yenn bijoux yi. ak yenn si xaalis bi moomu ko woon loolu rek dañ ko koo dénkoon ndax dañoo amoon ci moom kóolute bi mu génnee si confinement bi ñu ko defoon daal di nay wax autorité yi nañu ko fay bien yi ñu jël ci moom ndax ñoo ko génn këram buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di IGFM kon nag nee na mi ngi xaar autorité yi ñu fay ko ay bien ndaxte ñoom ñoo tax mu génn këram ba sàmbaaboo yi mën a ñëw këram cambriolé xaalis bu bari boobu boobule ak oor bu bari boobu lee lii rek moo fi jotoon a ruusane ci ak xibaar dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah.